boo xam ne rek gis na ne loolee lépp nag daje nañu ci candidat yooyu waral mu jàpp ne nag ñii sérieux wuñu ci li ñuy doxal am réew kenn du ko foowee yëglekaay bi di réew mi quotidien di dellu siwaat ci mbooloo mu takk moo xam ne rek dalal nañu ko moom Amadou Ba ci stade municipal bu Tambacounda ci njiitalu élimaanu jëwriñ ji di maître Sidiki Kaba àndoon ak ay responsable politique yu Benno Bokk Yaakaar foofee la amalee ab discours nag dal bu baax a baax ci kaw candidat bii di Jomaay président fi mu toll nii nag defante baa ngi mel na tulleeg màlle le quotidien yëglekaay dellu siwaat ci cong gi nga xam ne rek candidat Benno Bokk Yaakaar ma ngi koy amal jëmale ko ci kaw waa coalition Diomaye président bu ñu sukkandikoo nag ci Ousmane Sonko Amadou Ba moomee nag def na lépp lu mu mën rek ngir mën ak Diomaye fay ñu bañ a génn ci kaso bi amadu baa mel ni ko koy tontu ne ko yéen ay danger ngeen ci réew Sénégal guerre ba tàmbali na jamono ji nag yéen kaay bi di enquête ne Amadou Ba kay ma ngay yekk lu mel ne xeme rek kii di Bassirou Diomaye fay mi mu jàpp ne xamul dara ba noppi nag amut compétence boo xam ne rek war naa mën a doxal am réew lépp li ñu bëgg rek jamono ji mooy tàbbil Sénégal guuta Bassirou Diomaye Faye di tontu candidat Benno Bokk Yaakaar bi ne ko moom rek mooy fonctionnaire milliardaire spécialiste ci wàllu combine ak wàllu kuuba Ousmane Sonko feelu ko ne man mii maay doon kii soppi Amadou Ba ndax xamante nañu suñu biir bés bi le jour ne inspecteur yi kay jamono ji nag ña ngay defante ci seen biir Diomaye mi ngi ci terrain bi nag ngir mën a dagaan baatu askan wi ca Ziguinchor foofee nag nga xamante ne nii jàpp na ne capitale économique culturelle bu Sénégal la war a doon ma nga fay défier kii di candidat Benno Bokk Yaakaar ngir nag mu daal di amal déclaration patrimoine Amadou Ba addu jëmale nag ci wàllum monnaie ak capital yëglekaay bi ne Amadou Ba ma ngay xamle ne nag Sonko ak Jomaay ña ngay tàmbalee doon ab danger ci réew Sénégal Macky mu fa yéene wàcc ci wetu Amadou Ba yéenekaay bi dippee ko nag duel boo xam ne rek dox na ci diggante Macky ak Sonko Walf Quotidien addu jëmale nag ci taxawaay bi nga xam ne rek président Macky Sall fa yéene na koo taxawee ci campagne ub bu Benno Bokk Yaakaar bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Les président Macky Sall jamono ji nag dugg na ci langue gi nag ay moyens yu takkoo takku juróom benn million la ñu daal di jébbal comité électoral bu nekk ngir ñu daal di jublu ci affiche yi nga xam ne rek moom la ñu war a amal ngir nataalub Amadou Ba ñu koy mën di gis fépp ci biir Ndakaaru jëwriñ yeeg DG yi nga xam ne rek ñoom ñooy jàppale Amadou Ba fi mu toll nii nag Macky Sall sàkku na ñëpp ñu wàcc ci terrain bi terrain boobee nag seetlu nañu fa taxawaayu tout tànk yi ci jamonoy campagne électorale bi loolee yëglekaay bi di l'Observateur tey jii ci la defub taxaw seetlu ne fàng fa tab ay yoo xam ne rek kenn ku ci nekk yaa ngi fab gone nag di samp ab laaj ne naka la polytechnicien bi fas yéene changer Sénégal moom Déthié Fall ma ngay dellu siwaat ci yenn projet yoo xam ne rek mu ngi ko fas yéene doxal bés bu ñu ko falee ci bopp réew mi Déthié Fall di xamle ci biir yëglekaay bi ne dina def kéem kàttanam nag ba soppi xar kanamu Sénégal waaye fexe ba askan wi tamit nag di dund dund gu mucc ayib moom candidat bi di digg ne nag dina indi ay coppite ci wàllum mbay mi wàllum élevage ak wàllu industrie fexe nag ba ñuy jëfandikoo lépp lu ñuy defaree fii ci réew Sénégal Déthié Fall di xamle ci biir yëglekaay bi ne dina def kéem kàttanam ngir lu jëm ci wàllum libéralisation bu secteur énergie ak électrique Déthié Fall ne bis bu ngeen ma falee ci bopp Sénégal ñetti at rek laa leen ñaan ngir ngeen may ma ko su ko defee nag ay coppite danaa ko indi ci bopp réew Sénégal Idrissa Seck feelu ko ca wet ga ma ngay jëmmal atuy homme d'État yi mu am nag ngir mën a jiite bopp réew Sénégal Pape Djibril Fall di dig sénégalais nag ne bis bu ñu ko falee dina fexe ba ñu am vie bu meilleure Khalifa Babacar Sall fas yéene jël diwaan bu Kaolack def ko ëpp économique lu mu ci mënti doon daal jamono ji ñu ngi ci njombaxtal gi yëgle kaay bi di la soleil na ñoom candidat yi nag kenn ku ci nekk yaa ngay def sa kéem kàttan ngir bëgg askan wi fal la ci bopp Sénégal lu jëm ci élection yooyee nag téeméer ak fanweer ci ay observateur nag fas yéene nañoo dikk fii ci réew Sénégal ci njiitalu ki nga xam ne rek moom la fi waa CEDEAO ak waa ONU daal di yabal addu jëmale ak libération ma ngay dellu si ci lakk gi nga xam ne rek am na ca marché bu tuwaawoon pël yéenekaay bi ne nag fanweer ak ñett ci ay barabu jaayukaay nag lépp tàkk na bën a jëppet doon dóom ci beneen tàkk-tàkk la ñuy addu jëmale mu di njabootuk sénégalais bi